te wér gi mooy gàtt jollo ko am koraan na ko fermi bëtal na leer gi ne tàng borom daaru salaam. allo kenn du ko fàtte ne rijaal ya yi ci réew mi sakaate leer lañu mande te tam da dal xamatuñ sa foto la salaam waaroo kenn yi ci réew mi sakaate leer lañu mande te tam da dal xamatuñ sa foto la salaam

bu mag bi ko ñëw nga sol ko mu feesal yasab ba kenn ba fàtte nelaw jëfandikoo ko ñun doon sàppee borom daaru salaam. li nga yor sa tayla bu mag bi. ku ñëw nga sol ka mu fees. yaakaar ba may ko la ñaanul borom daaru salaam. waaye yow kenn du ko fàtte melaw wa daatu mu ràkke. jëfandikoo ko ñun doon sàppee borom daaru salaam. am naa sa méthode ndox mi. gàccal nga leen ko ñu duubal. sa kaasi leen ko sellal borom daaru salaam. नम वार जबल कनम वन सादासल भरंदा जपाते नंबर जपल पनम वन सां am sa neexotu ndox mi gàccal nga leen gëñu dub sa kaasi leeri fa sellal borom daaru salaam mawloo kenn du ko fàtte melam wadaa du mu rànde jëfal ko nun dunu sàppi borom salaam li sa sët di moo la ko bàcce ñaanal ko ndax tamu bar xaqiiqa yi suñu maam borom daaru salaam wadata moranke jabal ko nandon sape baram daru salam yiga sotti mola babake ñaanal ko ndax te mu barke atay xaye sama maam nga baram daru salam baro kenn ko fàtte manal wadata moranke jabal ko nandon sape baram daru salam yiga sotti mola babake ñaanal ko ndax te mu barke atay xaye sama maam nga baram daru salam soo fàttee melam wadaatu mu ranke jëmal ko ñun duñu sàppee baram naaru salaam safaani yàlla na de yokku ba sunu fanam wi de barke mboolem njaboot gi ci ñaan gi baram naaru salaam galam waga tokorake yabal tonon kono sape baram dar salam dayini basirna yimbaye jikom jalende ndi jor motol dalal bada hesal baram dar salam haro kendo ko bate melam waga tomorake yabal tonon kono sape baram dar salam dayini basirna yimbaye jikom jalende ndi jor motol dalal bada baram dar salam haro kendo ko bate जबला भरमारे मुर मैडम जबल त जने भरंदा मेर थोरमारो सला saafeema law wanaa tumuranke jobal maase duwaay ba hoon nanga teersi hedel ko soxlale beesi borom naaru salaa baaroo kenta ko saafeema law wanaa mu sañ ko léegi saasi jobal ko laawu ci saasi xadiira moo mi ndu suuf si may चाची जे बलाव